te di leen nuyoo fii ci kër Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Khadir di boroom xam-xam di imam di gëstukat tey jii nag ñu ñëw fii ci ndigalul Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad ngir waajtaayu màggalu Cheikh Abdoul Ahad di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru Sowal eh, commission culturelle bi nga xam ne ñoom la Serigne Sidi Mbacke digal ngir ñuy yëngu ci dajale ak gëstu. ak euh, tasaare njàngale mi nga xam ne sunu kilifa gu baax googu bàyyi woon na ko fi muy Cheikh Abdoul Ahad ci wàllu ay kàddoom wala ay jëfam yu rafet yoo xam ne ak ay jikkoom yoo xam ne nit ñi mën nañ cee jariñu e, ñoo teew fii tey ngir fas yéene taatan si ay kàddu kàddu yu témoignage ak ay kàddu yi ndénkaane ak ay kàddu yi jëflante yoo xam ne e, am na ci diggante sëriñ bi ci yum xam ci moom ak yoo xam ne dundu na ko ci moom ci Cheikh Abdoul Ahad euh, ñu ànd nag ak commission bi ci président commission bi di Cheikh Abdoul Ahad Jaxate euh, sëñ Abdoul Ahad Bousso Muxtaar sëriñ Abdoul Ahad Ka mu sëñ Modou Kabir sëriñ Abdoul Ahad maam Asta mu bàyyi sëriñ Bousso bi sëñ Mbàkke Kanni ak man mii di wax ak yéen di Abdoul Ahad Bousso mu sëriñ Thierno ñu ñëw nag ci sëriñ bi sëriñ Sidi Abdou Khadir ngir fas yéene ko dégg suñ micro mu ñëw ñëw rek dañ koy jox rek mu ñëwal ñu ci eh, lu mu xam rek ci Cheikh Abdoul Ahad suñ noppee nag ci mujj gi xam ngeen ren ji am na thème bu thème bu am solo muy Maodo ren eh, ci diggante Cheikh Abdoul Ahad ak jàmm muy attasaamo maanaam xajoo eh, li ci Cheikh Abdoul Ahad jëmmal ak lim ci indi soo defee ci mujj gi mu mu indil ñu ko ci kon sëriñ bi ñu jëbal la kàddu gi bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa muhammad wa alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di jaaree nuyoo bi ci sama bokk yi nga xam ne ñoo fi ñëw tey te yore commission culturelle bi nga xam ne mooy yore jëm ci màggal sunu waajur sunu sëriñ Cheikh Abdoulaye Mbacké ñu teg sunu nuyoo boobu ci yéen nga jot suñu ñu ko ci sunu kilifa ba sunu sunu xarit di sunu soppi di sunu mbokk sëriñ Sidi Mbakke xalifa Cheikh Abdoul Ahad Mbakke ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te dolli ko ak kattanam ba li mu bëgg liggéeyal waa juróom ba bëgg ko liggéeyal maam def ko man ak kattan sanu ànd ko moom di nuyu mbokk mboolem njaboot ko Cheikh Abdoul Ahad Mbakke képp nag di leen baax ci bés bu tedd bii ñu jëm ñu bésub sunu waajur bésub Cheikh Abdoul Ahad Mbakke ñu leen sant baax bi tamit ci tànk yi ngeen di tànk bi ngeen taxaw di ko taxaw ci suñu boobu nga xam ne ñun ñëpp seq na ak seen loo xam ne war na bu bis bi dikkee ñu ñëw taxaw taxaw yi ngeen taxaw waaye wóotu gi ngi tuur nag ñu leen ci gërëm wax di leen sant li tax nga ñëw fi nag muy Cheikh Abdoulaye Mbacké nit la koo xam ne ku yamba waxtaane la moom monument la woon ci ci lislaam nekkoon symbole ci yoonu murit nekkoon bâtisseur tam nag tabax lu wér ci yoon bi koo xam ne saabu bu jamono taxawee rek toujours mu fàttali la ko fàttali ay taxawaayam ci mat gi ci bëgg sëriñ bi loolu mu waxoon ne li mu bëgg doon mooy taalibu sëriñ Touba bu koy liggéeyal di sàkk ngërëmu. nee na loolu la defoon moom. ab jëm ab jëmuwaayam loolu nag wax yàlla def na ci la man ak lu mën lépp ba ñëpp seere na teeru sëñ Tuubaa la bu wër ndax mboolem ñi seqaloon sëñ Tuubaa dara ci Cheikh dara dara ci Cheikh Amadou Moustapha ko ku Cheikh ku Cheikh Moustapha bàyyoon xel la ku jaxasoo woon moom la ku daa ku daa jëflante donte booba sax gone la ci moom ay xelam doyoon na ko ba fonkoon na ko lool looloo taxoon mu kàbbu mu joxoon ko yóbbuwoon ko fa foofa kër googu kër Cheikh mu lañ fa waajaroon moom leen defaloon kër ne ma fay jëm ba nappee ma fay ba si ñoom las xamal ne kii kooku seqoon na moom. noonu la meloon ak Cheikh Modou Bachir waaye nee na ak Cheikh Modou nag ànd ak moom ci taalibe bi ñoom ñëpp ba làq seen gërëm bi fi nekkee Serigne Touba itam nekk fekk rakam daa taalibe bi googu la jàpp ci ñoom. ku ci gis da dee jàppe moom sa sëriñam loolu nag bëgg bëggoon sëñ Tuubaa bëgg doon taalibe moo waroon loolu ndax boobu mooy kilifa ñëpp kon la ci wàllu taalibe muy ko amoon taxawaay ci diine lislaam itam nag fu lislaam masa amee ab taxawaay bu ay jafe-jafe rek dana ci taxaw dana ci wax ba loola seddu waaye nag bu dee ci suñu yoon wi nag moom taxawaay bi ñu ci taxawoon moom néewuma kenn taxawaatu ko waaye yombut taxaw ndax bi mu toogee xilaafa nag ci la njabootu Sëñ Tuubaa gépp nañ mu xamal leen ne jëf ko bokk bokk ak ñoom bu wér du def dara ca ñeen yëguñ ko lu mu am itam sëddoo ko ñoom noonu la fi nekkee woon ak ñoom seenu njabootam mu jàpp leen ne ak njabootam daa leen taxaw damay wax ne toujours dañ koy fàttaliku ci num mu daa taxawoo njaboot gi daana fexe ba njaboot Sëriñ gi nekk ak bokki Sëriñ Tuubaa yi yi mu xam seenu njaboot ba at mi dana am ñaari ñaari ñaari cérémonie yu mag yu mu ci def yoo xam ci koré ak gàmmu yoo xam ne da ci dayale matam soxna ak jigéen ñi matam boobu kër xam day liste kër gu ne dana laaj ña fa nekk te toll ca loola mu dajale leen ci këram def ci lay ca war lépp ba ngoon mu soog a jox ku ne sa sa soxna may fàttali ko naa ci yoo xam ne dañuy toog ba takkusaan ndax ndax borom sédd yi dañuy dajale ci néeg jigéen ñi dajale bu dee ba takkusaan ñu kii yor bu dikkee ana si ndàngam ñu ne maa ngi nii ñu soxla ana soxna ndàngam ñu bool leen oto oto bi yóbbu leen seen kër noonu la ko daa defee kaay dikkaat ana suñ naan nga maa ngi nii mu dem ci na soxna naa nga maa ngi nii mu ne oto sangam yóbbu leen noonu la daa doxalee ci bokk gi loolu muy loo xam ne nag wax dëgg yàlla fi man man waaw ba tey te loolu lu amoon solo la loo xam ne day day nit ki xam ne am na kilifa. Hmm. li nga xam ne sax bu ma essayé dana ko fàttaliku mooy événement yi lu mel ne koor ak tabaski koor ak tabaski bu ma saa jot sëñ am na oto boo xam ne sëñ Sidi mi nga xam ne mooy ab moom la daal teg ci oto ba mu séddale suukar si ñu ne ñun ñi sama kër gii suñu daanaa toog ba oto corne ñun ma sëñ Sidi nekk ci buntu bi mu wàccil ma suukar dama sëñ Bello ko jox bu tabaskee itam noonu la daa def mooy nekk ci kanamu oto bi ñu def ci xar bu dikkee kër ñi nga xam ne sëti sëñ Tuubaa la ca am soxna ñëpp dana leen jox xar ñi nga xam ne ñooy sëti sëñ Tuubaa yëpp ca am kër itam dana leen jox suufu koor yooyu yëpp nag yu am solo la yoo xam ne day tax kin yëlëf boo xam ne am na ko yëlëf ca bàyyi na ko xel kon yooyu yëpp lu ñu koy fàttali ko muy taxawaay rafet yu mu daa def nekk noonu itam ku am ak xew ci njaboot gi bu ko yëgee dana ñëw la ca war a ko ba noppi nag bu amatee wala weneen xew la ca lépp da koy gàddul boppam def ko ci ndax xam ne jàpp ne sëriñ bi moom mooy si moom moom la war ci ñëpp te moom la moom moo war taxaw ñëpp yooyu amoon solo la ci yoon mi te wax dëgg yàlla personnellement man manqué na ma lool ci Sëriñ Abdou te lu ma lu ma neex ci moom la kon muy ku daa taxawu bokk yi bu baax a baax njabootu Sëriñ Tuubaa gi itam man ñaari kër yi nga xam ne xam naa muy kër Cheikh Souhaïbou Mbacké ak kër Cheikh Abdou Khadre ñoom laa gën a xam ci kër yi fee laa fii la fii la bokk waaye kër yooyu gis naa ne daaw am bis ñaari fan yoo xam ne ndaw seen daal ñëw fa bu dee yiy ñëw ci moom sax daa mujjoon da koy def liste li nga xam ne xam na ne dana ñëw at mu jot naa leen bu ñu dikkee wàccal leen ma lii nangam gis bu mu wàcc jotu li ma matul nag bu dee ñaar mu yemal ko ba mu seen xarit bu dee lenn mu ñu gis ko seen xarit noonu la doxale woon ak moom mu doon diggante ak seen xaat nag ñoo xam ne danoo doonoon benn soppante danaa wax ne sëñ Abdou Xaadir tal la loo mu jël rek na ko ñoom ñaar ëllëg rek gopplan da nga leen di boole liggéey boo boolewu doo liggéey mu ñaar yooyu rek doon sëkk ci seere foofu la tolloon moom sëñ bu xarit itam fi mu tegoon sëñ Blaat fàttali ko naa sëñ Blaat dafay yónnee moom lu jógee sëñ Blaat rek barkeel la ko jàpp am bis dafay yónnee ay fëgg jaay ay kawas ak saabu yooyu yi nga xam ne ay baar la ndax baar yi bi ñu ko waxee sëñ bi dañ leen ma tànnal ci kawas yi ñu ne ko ah déet lii de fëgg jaay ma sëñ bi la jógee nañ ci tànn nañ ci tànn <laughs> waaw ñoo dama yaakaar ne donc donc dongay daara yaa tax mu indi ko fi de mun ah mun a ah, waaye waaye nañ ci nañ ci wut kon ñaar rek jox ma te kawas pëgg jë noonu la tànne baara ko xeloon ne ko baara yi itam yaakaar daara tax mu indi de mu ne waaye nañ ko ci daggal daal di wax ci wax ci loo xam ne sañ xam loolu man daal yi de ku ci sangu doo doo rapati mukk ku ci fóotam doo rafalete man amoon naa ci denc waaye man dafa réer na ma <laughs> léegi <laughs> ok la bindoo woon ci moom itam bëgg sëñ Abdou Lahad fonk ko maa ngi fàttaliku bi sëñ Abdou Lahad waxee ci ci ci ci waxtaanu ci Abdou Diouf may bi muy digle ñu wateel ko tax ni ko war am ko sëñ bi da ko fonk la ko nuyoo sëñ bi ne ko lépp nag sëñ ci sëñ rajo mu sëñ rajo a ah tubaarkal waxtaan ma lu mu wax waaye ne ko ah tey de moom xam naa wax ji daa mel ëpp sëñ bi dane dane jug dem te kooku fonk la dugg ci biir wax lu ëpp du def lu ëpp tàll ma ñaan la <laughs> ah loo lu ëpp ba mu génne ma dafa naan ko yeewal waaye yeewut <laughs> ñoom tam faaw lan ne woon ci bëggante ak soppante ak doylante kon nag ñun ñi ñëpp dañ fi nekkee da moo moo doon suñu lépp seen xol def ñun dara lépp seen laat moo ko waral bopp kon doon seen xol waaye noonu la kër yëpp nag kër ñu bi nga ma dëkkoon noonu la may doon seen du am yoo xam ne ñëw kër ñu seen booba ñun suñu seen ma nga jëm kër seen laat ba mosuma ko fàttaliku dama fa nekk lépp waaye doo am ñetti fan ñeent yoo xam ne ñëwut toog moom waxtaan dem te noonu loon def ko suñu Cheikh Saliou def ko suñu Mourala def ko Badiane May def ko sama moom kon roy royukaay la woon ci wet googu gépp waaye nag fi ma ko fi mu ko gën a newee mooy digganteem ak njabootam ndax lu jafe la tolluwaay bi mu tolloon nga fexe ba sa njaboot dugguñ sa la nga yor te loolu mu réussir na ko doomam yàgg man mi ñoo yemoon ci xilaafa gi kenn xamut lu muy def kenn xamut lu muy doxee bàyyul leen dara maa ngi fàttaliku bi ñuy woote liggéey mujj bi ci barab bi moo xam ne moom lañ doon defar xam xam nga daara bi noppi la dem xaalis fi la bàyyoon xaalis bi noonu la ko Seex Saaliw ak defaree ginnaaw bi seen xaalis jox na ko xaalis bàyyi suñu saa yi la ko dénkoon fi yaa ko sëñ Moustapha defar may defaraat mujj barab am ko joxoon kër Ndakaaru soxna may bàjjan may moo Baay wax na ma diw sàngam damaa jox kër Ndakaaru koy jaay def ko ci liggéey bi ma bàyyi ko ci suba sama delluwaat dem na ko ah démb danga maa waxoon ne dan laa jox kër Ndakaaru mu ne ah, jaay gi laa moo tax dëgg ma daa ah, bëggoon daal ginnaaw danga am njaboot ci këru ndakaar moom liggéey liggéey moom dana egg bi soobee yàlla bàyyi woon ko fi njaboot gi ëllëg dana ko soxla mu mu yaakaar naa ne mu gënoon mu ko soxla nay dara laa fi bàyyi sama njaboot fas yéene fi bàyyi dara lu dul ab yar ak ku tali bi leneen loolu fa bàyyi da da daan ci yàqu bàyyi ñu yàqu yàqu foofu la newoon xam nga tax bàyyiwut bàyyiwut ak njaboot dara man ñaari kër laa xam ci moom ñu fi bàyyi muy belal ak këram gi xanaa géej géej ci ndaamaatu kooku joxoon na ko Sëñ Abdou Khadre kon kooku loolu itam mm, jafe la te toog fi ñaar fukki at ak nangam doon Sëriñ Tuubaa ca bàyyi woo fi dara bu ton dimanche joojee la yendoo kon xaalis du fi bàyyi mm. waaye muy doon doon xalifa li ko daan dikkal lépp daana xëy na dama topp soo kër gi dara du fi ne ndax lu mu yor jox ba ngoon la fa ñëw mu sog cee mu génn wàcce loolu dara yooyu yëpp nag lim yanu woon ci yoon wi moo tax mënoon loola kon kooku ku mat a ko lu baax cay xool aw li mu def nag moom lenn rek da cee doon sëkk tuubaa gi ni mu ko satale ci li ne woon koo xam ne xawoon nga dëkk bi ni mu meloon ci yi tere màggal masaa jot fii ci penc mi man ma xam buntu kër Sëñ Abdou Khadre bépp foofu yëpp ay taabal lan daa teg foofu di ci jaay ay kirees ak ok ak cigarette ci penc mi di def ay géew ci penk jumaa ji teg ko saan tëgg fecc ay sawar daanaka lay doon ak yéen itam yëpp boo demee dara xoos ci ni xam ne boobu moom carte kat yëpp fa lay ne fees dal man kuy carte ma nga ñëw foofu nekk fa am fa ay yooyu nag koy képp sargal ko ci dëkk bi doy na sëkk ci bilan boo xam ne bu rafet la waaye nag kër sëñ Tuubaa gi bu fi amatoon na nga ni suñu ne ku fi nekkal sëñ Tuubaa da nga sore jumaa ji loolu itam ab xelam ak xalaatam moo tax bu taxaw fi mu tax ku fi nekkal sëñ Tuubaa itam léegi kër sëñ Tuubaa bi fi pënc mi ngay am waaye itam kër sëñ Tuubaa yu bari am na ci réew mi ji mooma kon nag fu fekk sëñ Tuubaa am ci réew mi rek ma na ko sante Cheikh Abdou Lahad ndax am xelam ak xalaatam moo ko taxawoon india yi am solo itam mooy daari kaamil xam ngeen ne sëñ ci naali sëñ bi la bokkoon fii fii ci bayti école d'arxus ba bu ñu jàngale tubaab sëñ Tuubaa fi tabaxoon daa baroon ay lakk lool sëñ bi tër yi lakk rek ak dund mu woon suñ mën du tabax loo fi ne daa bëgg ñu fu ñuy téere yi moo waroon loolee foofee ak fu ñuy denc dund mooy sàq ma mu newoon ñaar yooyu sëñ beeku naaloon ginnaaw bi nag xar sax nga sëñ bi daa bañoon tubaab lool wax nañ ne sax li tax mu bàyyi téere moo yi ñu koon mori ci biir daa mbirum tubaab sëñ bi daa bañ tubaab moom tubaab moom amu ci woon kon nag loolu naaloo sëriñ boobu moo ko matal fii ci dëkk bi tabaxal ko kër goo xam ne si ay centaine de millions la ci defoon ci booba génnewaat ay téeméer téeméer ñoo jënd ay téere waaye nag njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp mu leen di bindloo alxuraan di bind leen xasit di fa dajale loolu tam liggéey la boo xam ne bu Sëriñ Tuubaa gërëm loolu ndax naanu naalu sëriñ bi la université bii nga xam ne moo sax taa taxawee tam moom moo ko sos moo ko taxawal moo miir miir bi fa newoon ba tàmbali fa liggéey liggéey yu baree bare taxaw fa jàkka ginnaaw bi la ko la la ko bàyyi ñëw songaat jumaa ji def yokk jumaa yi ak ak ak barab bi loolu tax mu taxawal ko waaye loolu lépp bu mel bu fa bayal ba nekkee barab ba nekkee ak liggéey ba ñu koy mën a eggale grâce à Cheikh Abdoul la kon yooyu yëpp tax na murid yi moom mënuñu ko fàtte mukk ndax ab taxawaay bu rafet ci yoon wi nga soo a indi nag jokk jumaa jooju ma tudd rek ak yeneen yëpp yëpp muy koo xam ne nag bu jamono masaa toll fii itam fii réew mu toll ci naqare ak xat sëñ la danaa but ay toni toni pepp ci magasin bi kulle yow mi na koy seetlu nit ñi boo keroon nawet bi jeex du ko bàyyi bu sat lu mu bon bon dana séddale lu ma cinq cinq ci barab bi ci ci magasin bi nit ñi day fanaan ay su ko xam ne day yóbbu ñaari ñaari doomam lay tam ba suba kuré bu la joxee boo boo xëyee da nga jaay am lu dundi am la lekk bëgg dee nga ñëwaat rang si waat ci ay téeméer nit téeméer ñu ñoo fa loolu tam mm, lu ñuy lu ñuy fàttali ko sëriñ la kon ku daa taxawu nit ñi la way néew doole moo tax sëñ Ibrahima sax mi ngi koy mi ngi koy mi koy wax foofu ci wayam boobu nen kam min faqirin ka ibin xalla zahatukum wa ya wa ba wa aaba yasurukum kam kam wa kami bara ñu ñàkk ñu daa ñëw ñëw sa kër waaye bu ñu dellu dañuy sant bu baax a baax kon noonu la meloon nag ñëpp ci ay taxawaayam taxaw ñëpp doonoon nit nit koo xam ne kam yàlla mayoon na ko ci fasaatu lisan ay waxam kenn du ko laaj te fu ne ma wax itam ñëpp daan taxaw te ay wax itam du gàtt du gudd loolu muy fasaatu lisan li mu bëgg a wax dana ko wax mu leer nañ toccal ko boppam na ma ko waxoon leeral ko boppam nu aayee kenn benn ko ante noonu la daa waxee ci wax ji tënku lool nag te lu mu bëgg a wax dana ko wax yàlla mayoon ko ci arxaan loolu tam buy wax lu mu soxla ci arxaan dana ko indi laa ji day mel na yëpp day day taxaw ci kanam mu koy dajale mu doon xakim tam maa ngi fàttaliku dama ànd ak sëñ Maodo Abdou Khadir dem mu koy saara ji bàyyi na ma kañ ànd ñu dem meloon ba ndikkee fekk ko ci biir ñu yëgle ko ma dikkee sëñ bi ne na sëñ Moodu rek ñëw ma dikkee ne waa ji ma man ma gàntu ma toppite ma dikkee desaan ma ma ma ma ko bàyyi ko ma ñëw ma di nuyoo mu ne ma waaw góor ko am nga fula kat ma ne jikko junee nit mën na am ma ma amal ko njëriñ ba du si ñàkk fula <laughs> ñàkk fula ñàkk ko moo ko may lii <laughs> dégg nga sëñ moo daan ne ko ñaanal ma ko nax ku ma nangul la ku ma dëggal la ah, mu ne ma nangu sam ci nangu nangu lu am solo la nit loo ko bëgg a bëgg a jox loo ko yéene yéene bu nanguwul da nga koy jox du jot ku nangu rek la jox <laughs> ñaari ñaari ñaari ikam yooyu moo moo neex ma lool ne kon nag góor góorgóor ci nangu nangu daal lu waaye am nangoo ko may ca wax jiitam ma a ci baat lu ma neexaat mu waxaat mi wax suñu mur mu ne ko ci hectare fekkee am lu mu doon wax ci affaire murid yi mu ne ko ah suñu mur daan ma yëgal ci murid yi léegi ni bu njëkk dan daa wax dégg jéemal laan sama bopp addina àlaxira loo ma déggal ma def ko loo ma teree ma ba ko léegi nag dana wax jégal naa sama bopp adduna àlaxira waaye sax sam xel doyuma rek sam xel doyuma <laughs> waaw waaw mu ne dama ko seet laaw loolu mi ngi door a jot mu ne mu ne ko léegi daal moom nag li ñuy wax mooy dimbal na sama waaye <laughs> ma xool léegi nag loolu la am léegi loo leen déggal ñu bañ hmm. kon moom it noonu la ma ci xekkimatam di nit ku amoon ak dogu ci mbir lu muy def lu ne bu ci jëmee moom da am dellu ginnaaw bi muy bi muy def tere dëkk bii coono yi ko ci fekk ak coow li fekk waaye mu ne bakkanam bi la ci teg ba am li ba réussir marché bi ba mu koy toj noonu la ci meloon marché bi jaaxal na kenn ko walaal waaye ba mu koy toj noonu la ci doon na ne mën na ci moom <laughs> def li muy def ba noppi <laughs> ca lool boobu marché bi xaalis bi yi bewoon lool waaye xëy xëy rek ba mu leen joxe dele ñaan du ko def ak def waaye dele ba jotee noo tàmbalee daa jekk rek ñu soogee njëkkanti gu ñu jël sa noonu la meroon ci mbir mi yëpp dafay am xasmu ak dogu ci li muy def boo xasee ba xalaat ba jub cëm cëmam lam def dana def ndax xam na euh, résultat bi résultat bi mu am ni mu yore woon yoon wi tam ni ko ni ko ni ko sëñ Abdourahmane waaye rek noonu la wax xadibal xakima bi xikmatin وسياعة وسقاء أيدي ساس العباد سياسة الحبد الخديم الملتحد أعماله الجلد النفي ستوى العديد في البلد رمز الخضر لسكره ولا عبقريته أبدا mu ne dafa liggéeyal sëriñ Tuubaa ci ci xikma lu mu doon def lu ne ci xikma da koy waaye ak njàmbaar nag ak saxaaw yi de ak tawag loxoom sëñ sëñ am laa lu mu lijjanti bu bu ko doolee mënut léegi mu du ko ci xaalis wala taral la taraanga joo xam ne si moom lu mu bëgg ci dana ko def dana ko am loolu def waaye bu dee ku yaradi ko nag muy yar bi noonu la daa doxee nit ñi mu ne sëñ Rahmaan ne principe sëñ Seexul Xadim moom la doon doxee mu ne liggéey jëfam yu baax yi mu doon def nag ci réew mi ak ci ci yoon wi moo tax day day day biil kenn du ko fàtte mukk am xale ma tam kenn du ko fàtte kon kooku mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké noonu la dundee woon ci ñun njaboot gépp di ko fàttali ko jamono yi ne waaye di di ko ñaanal nag ndax moom leen rek la boon mooy ngërëmu Sëriñ Tuubaa sagub si sagub Sëriñ Tuubaa rek ku ak sagub yoon wi boppam dara ñuru ko ci woon bu sañoon daal yoonu murid di jëm kanam yebatu ko Sëriñ Tuubaa nekk ci yoon nekk ci jub ku leen gis ñee leen waaye nag noonu la doon doxee ak yoonu yoon noonu la doon doxee ak tariixa ci yëpp itam nag daw soxla ñu am dara te ku ci sox ci ka mu taxaw ca la ca war lépp digganteem ak noonu la doon doxee moom ñi nga xam ne ne la fi Abdou Diouf Abdou Diouf ñetti weer yooyu moom moo ko bëggoon seen baax sax nu mu wutoon dana kon réew mi daa yaatu ci ay kilifa dafay nekk ca mënoo fu ne nga dem fa waaye moom moo forcé na ko mënuma ñàkk ñëw daal wax bëgg naa wax ne bu dikkee na wuti barab sëñ Tuubaa moo tax masaa masa agsi balaa ko nuyu da koy yebal mu jëm siyaare sëñ Tuubaa dem daal di soog a ñëw ci moom bu dikkee itam woo ñëpp bokk yëpp lay woo sëñ Abdou Xaadir nga xam ne dem fenn rek ak ñëpp lay woo ñu teew itte ju waaye am nag danga ko daa wax balaa ñëw mu bind ko bu ko président ñëwee nag ba mu wéeti moom bu dee yow da ngaa wax it mu wol la nga ñëw nga toog noonu la waxoon nga wax nga wax génn kayin wax noonu laa def mu jeex. day toog day nii bu diw sàngam man woo diw sàng nga dikk nga wax it jooju noonu la daa réglé yoon wi nga xam ne dara mënut a jënd ko nag sa jaaroo ci moom. te te te yoon bu wér a wér ànd ak moom yóbbu ko ci seen loxo nañu bokk toog fekkee sëñ bi am na soxla bi sama bëri soxla adduna ñu soog a ñaan soog a dem noonu la daal ànd ak moom ñetti weer yu ne gan gu am fonk gu mu fonk gu ne dana ko yebal ci sëñ Abdou Khadre doy la woon ko la bàyyee ko léppam nag lu jëm ci diine moom loo ko masaa wax mun la demal ci sëñ Abdou du ko nangoo xam sax weeru koor yeeg digg yeeg lépp loo doon doon xaritam nag bu dëgg jotee mu taxaw wax la ko ku fonkoon Abdou Diouf la doon xaritam lool waaye gis nga weer bi bam bam bam bam bam ban fi bañee wari te def communiqué rajo bi lank ne du jàll Sénégal wari ñu wax ñu noon wariwun suba dañu war suñu laa def communiqué ñu yóbbu ko rajo bi ñu ne du jàll bañ ca la waxoon wax jooju mooy wax ñaari boycotté RTS boycotté ñëpp fu ne nan fa ngir bëgg <laughs> te booba xarit sama waaye noonu la noon la daal réglé mbir état moom xam na ñu xelante ñoom ndax état moom loo ko wax ci wét ay régalu ko moom loo ko doon pese ko yoonam ci moo la ca kaw la ragal moo tax moom nag boo ko jëflantee moom ca kaw la kaw lay jëflante moom bi ko bi bi mu fu waaye Senghor bi mu koy ubbi fii ci forage bi sam wooteel ko Senghor dikk waxeen noo xam ne mel na da ko da da da da da da fayu ko borom sëñ bi daal di riposte ci saasa te saasa dal ci kawam moo tax bi mu diggee ci marché occasion bi mu sabaxee marché bi mu egg moom itam mu xam la mu daal di wax la mu war a waxee sëñ bi daal tontu ko tontu bu neex noonu la bindoo woon maa ngi fàtte marché occasion boobu ngay wax bi sëñ bi tojee ci coow yu bari sëñ bi daa mujj bind la bind wax rajo ci rajo bànn waa marché yi boobu xam nga bari ci ay nit ñu dikk mu wax ab bande yónnee ko seen laat di leen tuubal ak di leen jégul seen laat tontu ko ca ko sant sax na ko nag ñoom de li nekk ba tax ñuy soow mi ngi mel na daal ko ku xiif lool añut réer nga toogal ko laax saaxu soow ba sif ko benn raxas nga jël laax ba tuur nañ na ko koy mer ak jaaxle fekk yow defal nga musique ak ganaar yoo xam ne si yaa ngi koy indi la tur gën ko tuur nag di ngeen sos moom neen daal <laughs> daal la mere mere yoon dafa wax luñ dégg waaye bu ba ni musique yi daan xam ne lii taxoon nga koy def waaw loolu kon xam ne marché bi loolu am na fi léegi wóote lool Maodo Mor bi ñu jëndal ci wàllu digganteem ak ci wàllu jëmmale jàmm mm-hmm. ak mm-hmm. xam na ne loolu ñu ngi ci ay jamono yoo xam ne mm-hmm. kilifa gu mel noonu soxla ko loolu sax waaw am na solo lool waaw ku bëggoon jàmm la wala li ma di jox benn yoon xam nga fi bi ñuy feeñ fi ma dégg tukki tukki di ko bëkk démb seen jumaa jooju Macky Sall doon defaraat nga ñoo faral julli xiit ak ñu la ñu la jàkkee tukki la jullee tabaski ak kori mm-hmm. bi ba yàgg tukki yi bëgg seet tax coow lu lu bari la doon doon murid bañ ba ñëwee seen laat wax ko daal ne eh yéen sunna ngeen def ñii neen jumaa lañ bëgg a tabax bàyyi leen ñu tabax jumaa ngeen ngeen wuti fenn nan la ko àttee ne yéen sunna képp ngeen bëgg tabax képp kaar ngeen fa jëlee neen ñeneen dañuy tabax jumaa ñe ñe farata la kon nag ñëw leen dem leen fay waaw seen bàyyi foofu sax jox leen nag guy si ngor ñu dandaat tuuti joxaat leen foofu guy si ngor a bi rek lañ ko tudd lañ ko masaari bu jinaan waaye ah, foofu murid yi ñoo fa newoon ñoo ko ñoo ko moomoon waaye bu tukkee soxla ko da ngeen faa bëgg a taxaw jumaa bañ man ndoroon taw doon jaw yooyu yëpp ci bëgg jàmm moo waral ak yeneen yu bari nag ci ci ci ci ci ci ci ci yoon wi yoo xam ne ci coow dara fa waaye ak ci réew mi itam nag maa ngi wax maa ngi rek ku ne xam na ne 88 ak 86 réew mi tàngoon na metti lool. Abdou Diouf am na ñoo sax xelam demoon na ci bàyyi réew mi sëñ Ablaye moo ko demee toog jàmm rek ma fi mujj ndax booba tàng na lool ay weeri weer yoo xam ne mënut a génn Dakar mun a dem fenn Tuubaa sax bu fi daa ñëw day jël hélicoptère waaw boobu mënut a jaar Thiès Dakar ñu def couvre-feu ñu jagg six heures ba six heures kenn du génn booba booba booba bu amutoon sëñ Ablaye réew ma ca boobu fii réew mi toll nag fa la tolloon ci tiitaange ak jàqare ay boobu moom taxaay bu mu war a taxaw koy def biir ci moom ci ki muy waxal wax ko li war a def tam nag 86 noonu noonu la defoon gis ngeen fii dëkk bi itam élection yu métti yee fi amoon diggante Moustapha Fall ak Samba Yara ba kilifa yi doon ñiy far fii ñiy far fii mu indi coow lu bari ba kilifa yi bari doon ci jote ci la jëlee yoon engagement ne tere dëkk bi politique ne bu fi kenn vote politique léegi ñu naan mi ngi bëgg a tàqale sëriñ si te lii du dara kuy politique rek demal Mbàkke loolu lépp ci taxawal jàmm la ci dëkk bi waaye nag mboolem yëngu yi am ci yeneen yooyu itam rek da ci laa taxaw yore wér nga xam ne du neex a wax ci ci ci tara bi sax waaye taxawaayam daal moom ñëpp a ko ràññewoon. diggante moom état itam noonu la la doxee ñoom rek moom danaa fex danaa wax ne bu itee boppam moom ku mu ko jox gàddul nañ fexe ba. bañoon na ko moo tax bu Abdou Diouf Moussa di tukki wala campagne bu région Diourbel yëpp sëñ Abdoulaye day jël en charge li muy dundee lépp moo ko yenu ba keroog muy génn région bi ndax ban ko nekk soxlawul dara maanaam buy duggee ci région ba keroog muy génn lu ñuy togg lu jëfandikoo lépp saa si sëñ Abdoulaye moo koy moo koy financé ngir bëgg koo xamal ne doylu soxlawul dara taxoon na itam nag Abdou Diouf sax def dara ca. yëglu ko ndax hmm. ah, bàyyi woon ko xel ndax xam na ne saa bu defee lu mu ko war a def rek mu taxaw moom ab la noonu la doon defee noonu la àndoon la ànd ak keneen ku ñëw moom daal boo nekkee ci li mu bëgg di taxaw taalib yi di taxaw réew mi ci ci xalaat bi nga ko bëggee ngeen juboo boo defee leneen boo defee leneen nag mu taxaw wax leen dëgg kon nag loolu lu am solo xam nga am réew moom li ñu waxoon Seydina Omar rek ba foofa melee nii xaw a yëngu te ne ko ah ba mu laaj woote laaj te ñu ne ko luy pexe ci lii ñu ne ko ab yar ngay wut moo nit ñi daal li ma leen gis affaire mu leen de as sidqu al adlu wa sidqu maanu te waaw mooy réglé dëkk bu dëkk bu lëj kon nag il faut que suñu kilifa yi taxaw ci xadlu boo amee moom justice sistis bu leer te kii def def dëgg rek jàmm rek ma nit ñi nit ñi la nangul leneen nag li moom lay ñuy gàntu. xanaa ñu nga mujjee rek maanaam yan jikko ngay dénk sénégalais bi ñu roy hmm. naa la sëñ la dem jikko jikko yi nga ko war a dafa bari lool waaye man da li ci gën a solo mooy nangu am kilifa. Abdoulaye dafa nangoon kilifa lool mboolem bi fi ay magam nekkee moom kenn du ko dégg dara mu mujj bi suñ mu fal lu mujjee sax ci yebal ko muy tukki day def bu tukkee ba ngoon lam dajale di ay fanaan suba jox ko ko xëyaat fa toppat guddi gi dem nan la war a réew mi doon bàyyi fa suñ fal waaye Cheikh Moussa itam la ma moom ak kon nan fexe ba am nangoo am kilifa bu baax a baax waaye itam nangoo yiir sa njaboot tam nag am laat ak ndisam kenn xoolaal hmm. ak ndisam boo dikkee la la ko xoolaal da nga xam ne la am ko am kilifa la kon kilifa moom day fexe ba am kilifa waaye am kilifa gu la yiir tam baax na ci ñun kon nan li ndaw yi naan fexe ba nangu ñu yilif leen dégg nga cay topp ndigal nag ci bàyyi ay tere ca bañ a yàkkamti bañ yàkkamti dara ndax yàkkamti moom yàqul rek te moytu kàddu yu bari yi sam nag hmm, xam nga senegal fii ne wax dafay yomb ku ne man gàtt di sam ni wax kàddu yooyu nag moo tax dañ ko war di moytu baax baax ndax li muy yàq moo ëpp muy defar te da nga ciy lore te doo doo ci jariñ kenn dara kon ndaw ñi lépp solo ñu moom mooy ñu bo nangoo li nga xam ne moom la sëñ Tuubaa tëréew yoon bi daal mooy jaamu yàlla yoo xam ne da nga koy dëppaleeg sunna waaye di moyu ak tooñ tooñ sa moroom jaam wala tooñ sa boroom te nangoo liggéey sëñ Abdou Khadre ñett yooyu laa digle ku ko ku ko ko jox sa bopp daan la maa ngi lay dénk nga farlu ci jaamu yàlla ndax sunu borom ba ñuy bind bind wuñ dara lu dul jaamu yàlla nga farlu ci liggéey liggéey mooy tax nga man a moom sa bopp nga mën a jaamu yàlla moytu ko ak tooñ tooñ sa moroom jaam wala tooñ sa moroom sa borom ndax kuy tooñ kat doo mucc waaye kuy fay itam doo ta yi yii la la la digle yooyu nag ndaw ñëpp waroon ko bàyyi xel di moytu tooñ tooñ ci wax ak tooñ ci jëf te nangoo liggéey ndax léegi su nit ñi doo xaw a ñàkk jom lool bëgg nañ teraanga te nangootuñu liggéey yaakaar nañ ci pexe ki tappal rek la ñuy amee la kilifa goo xam ne nee na nit nit li muy li muy dal daj def ay tappale boo ko defoon ci liggéey am am ko <laughs> da ngay def ba amee ay tappale boo ko boo ko defoon ci liggéey am ko waaye léegi loolu yëpp na ko ndaw ñi mooy bu baax ñu ngi ñaanal bu baax nag ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne tubaa sëriñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi lool te dolli ak wéram ma li muy liggéeyal sëriñ bi ak li muy bëgg a liggéeyal sëriñ yëpp mu yàggal ko can ba ànd ko moom di ñaanal baax sëriñ Sidi Mbacke moom itam yàlla yàggal ko fi ci kanamu njaboot gi ba li mu bëgg a liggéeyal ba lépp mu yàggale ko ñu leen sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen jégalu nag ci kàddu yi xam naa waxkat bi moom dama ko doon moo tax sama doon fayal sama yéen rek ndax sëñ Blad Mbacke daa def ci ñun loo xam ne wax sëñ ñu ñoo wax ci moom ngeen wax ñu bañ caa wax ndax mën naa ne def na ci loolu lu bare bare def na ci moom lim ma daa def naa li gën a rëy ci man mooy toog ba ak ñu ne ñoo wuyu sëñ laat te am naa fii doon ba wax gone laa ñu bari ki kiw si ñu bari bari bu ma soxla toog nit dikk na la ñoo wuyu sëñ bi mm. xam nga dafa neex ci ab taalibe te amoon amoon naa ko ci moom am naa ci moom itam lu lu lu rëy dama wéradi woon wéradi ma sax dama dama doon jeexal boo sëñ bi ma bindal ko ab nooru daal yi it ko ko ne wax ko nag mu daal nooy dama jaaxal ci sama lool xaw ma dal bëgg ko ma ñaan mu ne waa baax na dama toog ma toog ba kii ba kii ma ma fàttu ma dellu ci ëllëg sama dis ma ne ko ñett yoon tawaloo ma di ko nuyu ko rek mu ne waaye Sidi Mbacke fàttoo woo demal toog <laughs> si si ma fa toog doon toog ah alhamdulilah bokk kon kon baax loolu rek laa ngi sant ba alhamdulilah maa ngi dund boobu tey te boobu jërëjëf jërëjëf barakallah barakallahu fiik jërëjëf jasakallahu xayran eh, sant nañ bu baax a baax yaakaar naa eh, ñu fi toog ñëpp xam nañ ne kàddu yi nga xam ne yëkkati nga ko indi na yu bëree bari yuñ ci mën a jàngate nga xam ne daanaka mën nañ cee tibb lu bëree bare bëree bëri ci yi nga wax yëpp te seere ko ci Cheikh Abdoul Ahad muy ci wàllu dogu geeg pas-pas bi bëgg gi Sëñ Tuubaa digganteem ak Cheikh Abdoul Xaadir euh, maanaa ak ni mu def dëkk bi ni mu ni mu ko taarale surtout li nga wax ne doy na ko sëkk bi naa mooy setal gi nga xam ne setal na ko dëkk bi euh, loolu loolu di ay kàddu yi surtout yi nga mujjee tamit ci sa diggante ak ak njaboot gi ni mën a taxaw njaboot ni mën a jël engagement waaye euh, wàllu xajo ak saxal jàmm ni koy jëmmale ci diggante kilifa yi diine yi nga xam ne lislaam rek la jiitaloon donte murid yi ñooy ay njabootam waaye teewul su waree atte ci lislaam lay sukkandiku comme ni mu ko ni mu ko defee noonu loolu ay mbir yoo xam ne daal yaakaar naa ne daa jékki-jékki rek di oto dem fii dem taawoon du tàggoo maa dem jaaxan bett leen bu demee karaan bi bari la yóbbaale macha allah waaw nga xam ne moom moom daal Sénégal la jàppe woon ne ak Sénégalam la maanaam ci loxoom la nekkoon dana loolu doon doxee kon nag kàddu yi am na solo lool bég nañ ci lool sant nañ ci bu baax it ñu ngi lay ñaanal bu a baax ndax sawar nañ lool ci bokk yow ab jotaay ngir sa bëgg xam ak sa jikko yu rafet yi nga xam ne suñu borom jagleel na la ko ci ak mbaax ak ci ubbiku loolu ñu ngi la ciy sant bu baax te di la ñaanal suñu borom may la gudd fan ak wér-gu-yaram kon mbokk yi ñuy seetaan wala ñu ñuy déglu ñu ngi woon fii ci kër Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Khadir muy commission culturelle nga xam ne Serigne Sidi Mbacke Abdoul Ahad moo ko tànn ngir dénk leen ñuy waajal màggal gi ci fàttaliku Cheikh Abdoul Ahad ci xam-xam ay jikko yu ñu mën a roy ci moom ñi ngi àndoon ak sëñ Abdoul Ahad Jaxate mi président commission bi sëñ Abdoul Ahad mu sëñ Moxtaar Fati Kanni sëñ Abdoul Ahad mu sëriñ Modou Kabir Ka sëñ Abdoul Ahad mu Baye sëriñ mu sëñ Mbàkke ak Abdoul Ahad bu so Cerno incha allah ñi ngi leen di jox uh, dig daje incha allah ñaar fukki fan ak ñett ci weeru Sowal ci magro sëñ Abdoul Ahad asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ay ak gëm. ak ragal ak yaakaar sëñ Tuubaa rek la ñu ko def